sa sakartu salika almabita wa salika alamira wa sabuta asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha balay se noo ngi ñaan mu yàgg Mbàkke te wér xam ngeen ni nag lépp loo xam ni sëñ bi jaar-jaar la mu jaaroon Cheikh Mouhamadoul Mountakha beetalaat na ko barki dem leen jóge ci màggal gi génn ci julli géej gi lépp ndakaaru moom ko waaye noo ngi jëm nag ci yaari guddi ndakaaru yaari guddi ndakaaru nag jar na taxawlu jar na seetlu ngir yu mel waaye daal Masaalikul Jinaan fay na moo tax Cheikh Amadou Muntaxa yëkkati liggéey bii di yaari guddi ndakaaru taalibe yi ndakaaru yu ànd mun leen dama cee bokk waaye damay jël sama taaw sëñ maam Thierno di koso di taaw Cheikh Mamadou Mountakha ah la jox yaari guddi Ndakaaru mu ànd ko ak taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn président de la république ñu ngi la koy yëgal waaye premier ministre Amadou Ba bis bi sa bis la Antoine Diome ministre de l'intérieur bis bi sa bis la ak opposition bi yëpp sëriñ koso woon na leen le premier ak le deux. lépp lañ koy defee woo ndakaaru yépp ñu génn ñu fàttaliku ñaari guddi ndakaaru ak tartare waaye li yàlla fay tey sëñ Bamba jëwriñ mbakk yu fay ah mooy teeru gan ñi moom moom bis Abdoulaye Diagne Saniko Pape Fall ami biti Pape ah ak taalibe bi nekk ndakaaru yëpp xañu leen ci sport bi waaye ku yaakaar sëñ Bamba te sëñ Tuubaa jox la teraanga te nga dëkk Ndakaaru woon na leen ci bis bi ak waa kër Alaaji Yande Jóob ak njaboot bi ak ñi ko daa def ñépp sëñ Koso moom Cheikh Amadou woon na leen le premier ak le deux ne ñëpp ñëw ñu fàttaliku yaari guddi yaari guddi ndakaaru yi nga xam ne sëñ bi mag bi moo fi jaaroon demoon ci liggéeyam bu rëy boobu bi bis bi nag di doon bis bu rëy ngi ko yëgal nag ñëpp njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp ak fu ñu mën a nekk ñu leen ko yëgal di ko yëgal itam mboolem seexi sëriñ Tuubaa ak fuñ mën a nekk di ko yëgal it bokki taalibe yëpp ak fuñ mën a nekk di ko yëgal it waa nguur gi yëpp tàmbalee ci président Macky Sall jaar ci Amadou Ba ministre de l'intérieur Antoine Diome ñu ko daan ñu mu ci daan taxawee moom itam ak mboolem membre gouvernement yi ndax ñoom suñu bokk lañu di suñu bokk jullit waaye nu bokk réew mi kon duñ fiy def sañ nañu caawoo ñu ñëw bokk ci bokk ko ak ñoom di bokki taali bi yëpp nag bàyyiwuñu kenn te di ci soññ ñëpp itam ndax bis bi day bis boo xam ne bis bu mata sonn la ndax bisu yoonu géej gi dafa am solo ci yoon wi lool ci mbirum sëriñ bi te bis bii nag mooy ubbikaay bi nga xam ne sëriñ bi jóge na ba ndar ñëw ba ndakaaru ngir di waajal yoon woowu nga xam ne moom la demoon fanaan mi itam doonoon fanaan mu am fàttaliku moo xam ne fanaan mu tar la woon fanaan mu tis la woon ngir noon ye ñoo ci jublu woon tumurangeel ko ak sonal ko te lañ ca bëggoon ci ab coono yàlla nattu woon na ko ba daloon na ko ci waaye alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal ko ca tawfeex ju toll ne yokk ko ay tawfeex rek la def ak yokk ko ay ay ndimbal ak yokk ay maqaama waaye wàññiwu ko wàññiwu ko dara fàttali googee mu ko fàttalil boppam nag li iza zakaru zalikal mabita wa zalikal lamira subuta ta ilal jihaadi bil armaahi nafsi walakin daba anil maahi doon lu loo xam ne ku ko dégg ku ne war ngaa xam ne fàttaliku mu jar ko la looloo tax kuréel bii jóg man na ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñu di ko fàttali di ko fàttali di ci taxaw taxawaay bu rëy ñoom itam ñu ngi leen ci gërëm leen ci sant bu baax ci seen taxawaay mosuñ caa yokkat mosuñ caa def dara waaye ñu ak si Cheikh Mahamadou Mountakha mu waxee na ci ñëpp bokk boole ma ak ñoom ñu nekk ci di nab nabi alhamdulilah ñu ngi ciy gis yokk ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaye ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax guddi googu nag damaa wax ne dafa am solo ci tukki bi te tukki bi dafa am solo ci yoonu murit ndax sëriñ bi daf cee lépp loo xam na luy luy njëriñul àdduna la ak luy njëriñul àllaaxira sëñ bi da ko jële ci tukki boobu jee leen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh taarat ila jihaadi bil armai nafsin walakin sabba anil maahi